formation lañ war a def bi ñu amee suñu lijaasa bu gën a mag bilee mu di nag ab laaj boo xamante ne ndaw yi di ko faral di am nag bu dee ñenn ñi xam nañ ban métier lañ bëgg a def ëllëg ñenn ñi moom jamono ji dara leeragul ci seen bopp. mécanique mécanique véhicule moteur parce que nit ki da xool li nga bëgg nga def ko waaw sa famille mun ñu la pousser nga def loo xam ne genre bëggoo ko nit ki fekkee def nga li nga bëgg après avoir eu ton bac mun naa ne day gën a yomb bu dee élèves yi cent pour cent la ñu quatre-vingt-dix-huit pour cent yëpp mën naa ne dañuy am problème bu fii si Sénégal te loolu dara wala lu ko nu dul ni système bi di doxe système bi mën na ni baaxul li ñu jàng dafa bari boo jëlee lu mel ni matière yu mel ni histoire zoo SVT ñoom ñooñu seen programme bi dafa gudd trop. ci boobu li lëndëm waajur yi itam desuñu ci ginnaaw ba tax yenn saay sax ñiy faral di dem ci yenn bërëb yi nga xamante ne dinañ leen rek mun a gindi. parent yi dañuy bëgg mais def souvent boo waxee xale bi mu ne man bëgguma loolu man gisuma loolu boo ne ko loo bëgg mu ne man xaw ma mais soo ñëwee fii rek da ngay am solution. bu ci mel ni. balaa muy def bag bi balaa muy tàmbali sax terminal bi la ñu war a ñëw parce que si biir année scolaire terminal bi lañ ko war a gunge defaral ko procédure bi. donc dafa am lu tudd test de personnalité la kayit la boo xam ne dinañ ko laaj moom ki mu doon. est-ce que ku noppi la est-ce que ku bëri wax la est-ce que ku tey la. am na si ñoo xam ne ni euh, dëgg-dëgg euh, bëgguñu wala soxalu leen pour ñu dem bitim réew donc Sénégal fii am na école yu mag euh, des écoles de formation professionnelle dañuy ñëw seet si lu ci gën a bëri def partenariat ak ñoom pour que tey xale bu amul visa am wala ku buggul dem jàngi bitim réew ñu mun ko proposer école yooyu noonu. jamono ji ñoo ngi ci vacances bachelier yu yees yi nag am nañ fii ak ñetti weer ngir mun a xam lan rek lañu war a mun a def ëllëg mu mel ni sax ñenn ñi ñoom ay fan yu néew rek toftal ci résultat baccalauréat yu mujj yi ñoom nag sol nañ seen ay dàll utali bërëb yi ngir xam lan lañu war a def yi